signal ak. mbokk yi Abdou signal ko Mbamba. signal ak Bébé As. signal moom ngeen moo ngeen mën a Bébé As moom ngeen moo ngeen mu ruusu. signal ne dina war a bari bari jam jam moom. ndeysaan da ngay moytoo. signal ak Bébé As. signal moo ngeen moo ngeen mu lu wax li Bébé Ass ngemboo ngembul ruus yi ndeysaan Signel ak Bébé Ass ñoom ñaar ñu noonu ah Bébé Ass cokaas na gauche demul Signel ak Bébé Ass ñoom ñaar ñu noonu Bébé Fass ak Signel Bébé Fass ak Signel ñoom ñaara ñu noonu ah attention jàppante na ñoom ñaar signal ak bébé aas signal bébé aas jàppante nañ épreuve physique sa kaw la ndeysaan ah bébé Fass dugal bébé aas ak signal bébé Fass a ngi dugal ay percule Bébé Fass Signal jàpp na Bébé Fass ngi roxos ay coup ndaysaan fii ci stade Iba Mar Diop ñu ànd seen Ndiaye production Bébé Fass ak Signal Signal a ngi dóor góos ndaysaan Signal a ngi yor rek di dem ndaysaan tey nag ñu ngi fi nga xam ne mooy stade Iba Mar Diop ñu ànd ak as ki mooy Ndiaye production si 15 ans de carrière si yéen ngi dóor ay gauche mais Bébé Fall ay attention si yéen ngi dóor si ñeel ak Bébé Fall ñaar ngi noonu Ama Mbaye Fall loxo gauche bi jàppul borom bi ngay dóor pour ki nga xamante ne nii mooy Signal Sigui jàpp na ñaari ngem ya moom Signal ne ngañ ko laa ilaaha illallaah mu ngi ko doon jël benn bañ attention Bébé ak Signal ñoom ñaare ngi noonu ba léegi Bébé Fass ak Signal Bébé Fass ak Signal ñu ngi noonu ñoom ñaar saako jëm ko xar mu bañ eh, Signal dana ko jëm xar Boy Fass bañ attention ñoom ñaar Bébé Fass ak Signel ñoom ñaar a ngi noonu Ibou ñaari xale yaa ngi ba léegi. waaw Babacar muy diggante Signel ak ki nga xam ne moom mooy Bébé Fass dafa mel ni ñoom ñaar dañoo neexoo ñaari sew diis lañu. ñaari sew diis lañu. ku ci nekk loo def sa morom da bëgg a def yëfi boppam waaye kenn mayu ci sa morom lu mu def lu réussir kon ñoom ñaar dafa mel ni dañoo neexoo waaye ba tey di leen fàttali ne ci journée ki xam ne moom mooy Fallou Ndiaye muy feete 15 ans yi mu def ci biir làmb tey jii ci stade bi Bambaar woo ay xaritam ay soppeem ay wëllëreem ay am di jàmbam lépp ngir bëgg am bëggal amateur yi Babacar. ndeysaan moom Fallou Ndiaye mooy feete 15 ans am carré biir làmb. war na fee moo ngi noonu di yuuxu. Ndeysaan war naa li nga xam ne moom mooy live. Ndeysaan. doomu Ndeysaan. ñooy. tey. Thiate Seck gi yuuxu lu doy waar. ñoom ñaar a ngi noonu ba Bébé Fass ba léegi ñoo nga sa ñoom ñaar waaw waaw signalé ak Bébé Fass ñu ngi si ba léegi ñoom ñaar Bébé Fass a ngi dóor ay góos ma ngay rokas ay ko waaye ki nga xamante ne nii mooy Guiro Seras ma nga yëngal supporter ya ndeysaan digganteem ak ki nga xam ne moom mooy Tonnerre ndeysaan ñoom ñaar xas-xas boobu metti na waa lii loolu la doon waa lii loolu la nii mais lii lu mu doon lii lu mu doon quelle ambiance la ilaha illallah oh! waay di ko baara gi yëngu bawal bawal yi damm nañ lii ndeysaan seen jikko la oh ilaaha illallah. deret la. deret eh. la. te Thiat Seck. ay waay. maa ngi laa leen national gisee deret la ne. la ilaaha illallah. nañ ko. oh. ah. ndeysaan ba tey. si ñeel bébé paas combat bi yàgg na. waaw ndeysaan waaye di leen fàttali signal ak dafa faas ak si biir kër gi ba léegi jam jaar kenn day rëpp na lu am daan na ko signal daan na Bébé Fass signal daan na ko signal daan na Bébé Fass ko ndax daan ko